ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog laa xamal besam bur yàlla ne bind na am malaayika ma nga aras day woor bëccëgu woor guddi ga salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi bàyyi xel Rafane TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte ak kontante bu baax ci bàyyi xel ngeen ñuy bàyyi xel indi leen seen émission yóbbalu weeru koor ci wàllu naafi lay maanaam bu ñu wooree juróom-ñaari fan bu dugg ci juróom-ñetteel bi li ñu war a naafila bu ñu demee ci téere bi Sëriñ Sooy bu Mbàkke ba yal nañ ko yàlla fayal dinañ fa fekk ñu war a la ñaari rakka rakka bu jëkk bi dinañ jàng faatixa benn yoon xul wallaahu ahad fukki yoon ak ñaar loolu yépp ku ko def araf yi nga xamne mo nek ci saay nga benn bu nek dinañ ko fol juróomi yoon dina melni ni ku lewal xeeti seydina muhammad manam ku leen jox ñu lek juroom ñaar fukki at jox leen ñu naan juroom ñaar fukki at solal leen juroom ñaar fukki at dina melni ku gorel junni ci ay jam te lo ñaan yalla dina la ko may te bo faato ak leer dina la fekk fi nga xamne modi sa bamel te di nga rambu juroom ñaar fukki nit ño xamanteni ni warono dug safara nga ràmbu leen ñu dem aljana te boy jéggi sirat dina melni ni ak melax mbokk yi ku ci bëgg am yeneen leral demal nga abonné suñu page Facebook YouTube Refan TV bul fàttee bës kolos notification bi ndax nga am suñu programme yi nga xam mom lañ leen di wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wal ashabi wa mawala kon mbokk yi wat nañ ci seen jotaay bi di yobul koor ci sen site bi di Refan TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru mag wi ñu nekk ñu ngi ci suñu juróom-ñaareelu jataay ci juróom-ñaareelu fan ci weer wi eh, di ñëw ba tey rek ci ngeneelal weer wi muy weeru mag woo xam ne waxuñu jullit yi waaye ñi dul ay jullit sax weer wi amal na leen geneen loo xam ne mën nañ ko cee amee boo demee ci téere bi ñuy wax durratu naasixiin nettali na ci benn xiisa boo xam ne benn yahood la boo xam ne da doon wormaal weeru koor wi donte daawu ko woor ndax nekkul woon ab jullit benn bés mu ne ca marché ba ak doomam am lu mu ko jëndal ci aw ñam doom ji di ko jëfandikoo ci biir marché bi fekk na boobu ay jullit yu woor ñu nga fa woon mu gëdd doomam jooju ne ko bàyyil li ngay lekk ci kanamu jullit yi woor donte yow wooroo daldi nangu la mu yoroon mer ca lool loolee yaxoot ba def ba mu demee ba toll ci sukkuraat war a génn àdduna suñu boroom daa yebal malaayikaay yermande malaayikaay yermande yooye bañ ñëwee dañ koo sax baatu laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah mu dal di wax laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah ci jamono yooyee muy sukuraate ñu dal koy atte ku wara dem aljanna ngir seede na ne moom gëm na yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa mu mujj nekk ab jullit ba ñu laajee yahut boobu lan moo ko jural loolu lan moo tax bi mu tolloo ci sukuraat suñu borom yëbali malaaka yi yërmande ñu sax ko baatab laa ilaha illallah ba mu tudd ko ngir texe dañ ne dara mayu ko ko lu dul worma gi mu joxoon weeru koor wi ci bés boobu yi artu googu mu doon artu doomam di ko tere muy lekk ci biir ñi woor loolu rek ci la ko yàlla wormaale ba mu texe jaare ci wax laa ilaha illallah kon weeru weeru matu matu wormaal la moo tax képp koo gis muy daq weeru koor ci di def ab sefaan wala di nekk ci ab sefaan naan da koy daq weer wi xamut luy weeru koor weeru koor kenn waru koo daq weer wu ñu war a tatagal la weer wu ñu war a yaatal la weer wu ñu war a dalal la weer wu ñu war a dundal la gis nañu Mawlana al Abdul Xadim Cheikh Ahmadou Bamba moom ku fonkoon weer wi la bi muy nekk Gabon ca Mayomba am na weeru koor wu ko fa fekk woo xam ne bi weer wi teru amul dara lu mu moomal boppam ci loxoom lu mu mën a def ab xadd mbaam war koo def ndogu dara lu mu yoroon amu ko lenn daal la moo fa nekkoon lu mu moomaloon boppam te da ko araamaloon ci boppam ngir jëfandikoo ko mooy loolu ko tubaab yi daan fay weer wu dee fukki dërëm yooyu ñu ko daan fay waaye sëriñ bi daal araamaloon boppam ci jëfandikoo ko weer wa bu xedd mosaa jot léeg-léeg ndox lay na am ndox moomee lay naan mu di ab xedam bu dog jotee moom lay naan dem na sax ba toll ci jamono yoo xam ne dootul am ndox bu xat jotee day dem bu tollook garab gi ko tiim wet ci xob yi daal di koy sex bu ko yéeyee ba mu nooy mu yàbbi garambaay li won ndox mi bàyyi ko ci xob yi loolu yi la continuer di ko xede di ko ndogoo bu weer wa jeex ànd ak tartar yooya mu nekkoon ak jafe-jafe yooya ak coono ya ak marwaak xiif ba yépp teewul weer woowee ba muy teru sëriñ bi daf koo dalal ni kuy teeru gan gi mu gën a fonk mu di ko gane si nga xam ne ak xasida la teeroo weeru koor wa muy xasida ak yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi e yow gan gu tedd gi yaa xayra dayfin e ngeen gi gan ata bil bisri madadi dikkal nga ma waaye fekk nga ma ci mbégte ak ak dolleku mbégte ak ak dolleku loolu mooy wane ne kon moom la ko weer wi fekk lépp ci jafe-jafe jàpp na ne weer wi moom amut lu ko gën a tedd ci moom bombek ci mum ci am munu ko misal sax motax bim koy dalal da ko wax ni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi maa ngi lay dalal ci ahlan dila dalal ci wa sahlan dila dalal ci wa tarhiban bila adadi nga xamni ne ñetti baat yi mom la arab di dalale ganam Serigne Touba jël na ñetti baat yépp utiliser ko te doyatu ko bam ko ne lima lay dalal dal amut ab limite amut fu mu yem kon mom non la daan dalale wéru koor kon mbokk yi ñu tàggu foofu xam naa boo suba incha allah ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ma njëkk wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog laa xamal besam ba bur yàlla ne bind am malaayika ma nga aras dey woor bëccëg woor guddi ga